ñu maanaam Baye Fall buy liggéey. sëñ Tuubaa ñu di ko seet di ko seet. te jébbalewul. waaye seen pasteur. te jébbalewul ak seen i yéene. moo tax mu ne seet si. sant si boromam. ci jaar gi fi jaaroon daaw na meloon ñëwit muy muy ak soñño ci yéen mooy yoon wi xool fi liggéey bi toll sant ko boromam yéen ngeen xam ne gën liggéey loolu yëg ne yéen a ngi liggéey mu xam fi ngeen toll mu xoole yaatuwaayu li daara ji lu mu fi nisee mu xam ko mu mooy yoon wi bi ba nga ba nga gëm bi bu lii sëñ Safal mii daa am sërëm sërëm bu nga ñëw ci morom ndimbal ndigal nag sa xol sedd ci guy sàmm nañ ko ci naan ma rek ñoo yaa ci parti mag yi ak rabbi rabbi la kon noo ko bëggee rek defe ko jàpp ko ndigal lool yàgg ko yàgg ko ndigal lool lii lu rëy ci lu rëy ci Kassé Fall la sëñ Tuubaa mu tàggu Kassé Fall dafa nu ñëpp da war ko tey kenn wutoo toogal doom baa ngi bàyyi dund sax waaye noo jégal na kàddu yi ndax kàddu yi kàddu yi kàddu yu néew la ndax taali moom dañuy wax ne ci diggam ak sëriñam daa war a mel am néew dafa xew sang yi bu yëkkatee kàddu day mel ni sëñ Moussa Baye Fall sëñ Moussa Bassirou Nawel noo ngi lay siyaare baax dégg kàddu yi nga joxe yi nga a sëñ bi bëgg nañ ci lool xam naa bëgg noo indi ndimbal rek tax mu ñëw dafa ne mënu ko yónnee te am loo xam di xool ci la suñu defaroo ne loolu dama ñaan saa borom dimbali nu ci barkeem di dool nu yërmande ak mucc te xewal yi ko ma liggéeyal bu baax a baax a baax su xool daal la seetlu duñ mën a wax tey ndax lii moom dina ko moom daal mën a am jombal jombal moom parce que Ibrahima Mbacke baax ma kat nee woon Sëñ Tuubaa bu ko defee loo mën bu defee loo mënul su ko defee loo mënul ko jomb waaye du ko lii ñu am jombaloon tey parce que mënul daan ko am déet te liggéey bi tàmbali ak agogut borom ñëw seet si ko ñëwal ay gërëm di ko jënd loolu moom ba nga xam ne lépp a ngi jiw yàlla suñu borom kat du ma ci wax sax waaye yëg gi daal la bëgg yëg yi ndax mën na ko jaamu ba yokk ko dara mën na ko muy wàññi ko dara waaye yëg gi doole ci lañu dimbale yow yëg gi ngeen indil nag kon ci la dimbal Baye Fall yëpp nekk tey kon noo ngi ñaan sa borom dugal tey dama ci kaw nga dem murid yaakaar si da nga ndawal yàlla nga ñëw tey baax daal sama jur baax wa ñu ma jógee tey bu fekkee dégg dara na lépp jeex tàkk tàkk tàkk sëñ Tuubaa bi nga xam ne moo doo war nañ sant suñu borom sant ko yàlla yàlla yóbbu murid yëpp ak yonent yëpp kon dañu leen sant ko nu ko bëggoon defoon ndax ko yeetam làq seen ngërëm ndax sant nañ yàlla bu baax ndax ragalul corona bi bu ko Macky Sall yow la yow la bëgg yaa ragal yàlla yaa ragal sëñ Tuubaa bëgg kon bu nu waree ragal yow la war a ragal bu nu waree bëgg yow la war a bëgg ku ne yoo leen bëgg yoo leen sopp yoo leen yaakaar kon nag nu ngi ñaan saa nga yàgg fi lool nu lool te nga naanal ko wajur baaxoo naanal ko sa maam ja lépp nga àggale ko kenn kenn ko àggaleel ànd ko ñu ko bëgg àggal àndal ñëpp parce que seeraan baax parce que seeraan baax san baax Mbàkke san nan baax sëriñ bi dafa wax ne ay kàddoom dana gàtt lool mu ne dafa sant si bu baax ba ne Baye mu ne maanaam buñ nee Baye Fall. te Baye Fall di dëgg ci moom. te Baye Fall di dëgg ci moom. damay daal di gënal bopp man. mu ne daf koy gënal boppam moom mii Serigne. ngir jëmmi Serigne Touba. ma xam ne rek moo nekk xam ne rek moo nekk ci xolam. mu ne loolu rek mooy ekkado. dégg na dégg na wax bu baax. mu ne Serigne bi Serigne bi neen dégg na kaddu yi bu baax a baax. noonu rek lay mu ne li nga ci fas yëpp noonee rek lay amee nag. mu ne moom sëñ Bass mi lépp ci moom rek la ko jaarale woon. waaw. ñu tax ñu tax ci digg bi. waaw da ko fee lee moom koy mbee lee moom koy mbee bàyyi bas xool. boo demee ci kër ga. bu xalaatee lu muy lu muy deflu. moo ko baal mu ñëw mu xam ne fii fii lay wax. bu ñu jógee ci loolu moo ci

di jataayu Pastef ndax ku nekk xam na diggante sëriñ bi ak taalibeem ba maam Cheikh Ibrahima Fall nee na kon nag jataay bii bu sëriñ Touba yëkkati ay jéegoom ñëw ngir xool fi mu toll ni ko sëriñ Moussa Mbacke waxe léegi ñëw na sëriñ Touba jóg di seet si liggéey néew na sëriñ tubaa jug di seet si liggéey bu eggagul waaye seen yitte ak seen pasteef ak seenu taxawaay ak barab bii ni mu demee nee ndax lépp day wone mbirum sëriñ bi rek ndax nëga ci si daaw la sëriñ bi ñëwoon de ku nekk xam na li fi nekkoon waaye sëriñ Touba nee lu mu bëgg. suñu borom da ko cay fekk si de ndax warul woon mën a gaaw nii mu gaaw nee na kon ku fi ñëw ba gis li fi sëriñ bi naan te sant leen ko ak pastef bi ngeen ci doxee sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax di tàmbalee cant gi nag ci sëriñ Seex Jëmb Faal nga xam ne mooy kilifa njaboot gépp di ko ñaanal bu baax mu gën fay yàgg yàgg koo wéttali ci liggéeyu Serigne Touba bii mu ne yéen ñii topp ci ginnaaw Serigne Cheikh Jëmb Fall te ñëw fi teewal ko fi Serigne baa ngi leen di sant bu baax ak njaboot yëpp ni ko Serigne Falilou Fall waxe léegi rek yóbbaale na kàddu yëpp kon nag jataay bi daanaka du jataayu wax de ndax jëf mëntu ànd ak i wax. te yéen de ku ne xam na ni. jëf lañ leen xame de. waaye xamewul leen ay wax. nee na kon nag. sant rek moo ci war. ndax la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon rek. dafa waxoon ni kër Serigne Touba dafa am bañ. kër Cheikh Ibrahima Fall am bañ. nee na kër Serigne Touba. mbañam mooy ñàkk joxe ndigal. mbañam mooy ñàkk joxe ndigal. kër Cheikh Ibrahima Fall mbañam. mooy ñàkk jëfe ndigal. kon nag jataay bii dëggal na ni loolu daje na ci kon nee kon li ci des moo di sant rek ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi lool te li mu bëgg a liggéeyal sëriñ Touba mu àgg na mu ko bëggee rek ndax moom amul benn yitte soxlawul dara ci àdduna lu may liggéeyal sëriñ Touba ak bëgg ñëpp dox ci pësteef di ko sellal ngir jëmmi sëriñ bi nee kon nag na seenum xel daal bu baax ndax bu yëkkatee jéego yu bees si fii lam ñu fasal mooy li gën ci ñun ndax sëriñ bi kat mas naa liggéeyloo taalibe yi ca njaareem ba noppee mu wax Cheikh Ibrahima Faati ni ko damaa bëgg ngeen fas li ngeen bëgg Cheikh Ibrahima Faty ko nañ bàyyi nga fasal ñu. Cheikh Ibrahima Faty ni ko nan bàyyi nga fasal ñu. ndax ñun buñ fasee dina am lu ñu fàtte. ndax ñun buñ fasee dina am lu ñu fàtte. kon kon nag sëriñ bi nañu fasal. kon nag sëriñ bi nanu fasal rek. fasaleel taalibe yëpp. li nu bëgg lépp ñu am ko. li ñu ragal lépp ñu mucc ci. ci lépp nag mi nga aju ci topp ci ginnaawam rek. déggal ko. bañ koo jiitu ci leen na te xam ne loolu mooy sunu njariñ. àdduna ak àllaaxira kon nee na ñu yemale foofu kàddu yi nee na sëriñ Fallu li nga ñaan ci màggalu sëriñ Tuubaa gi fekkoon nga ci sëriñ bi fekkoon nga ci sëriñ bi ba mu joxee ndigal ci màggal gi yàgg na nee ba mu joxee ndigal ci màggal gi yàgg na te amu ci benn xalaat mus ci am benn xalaat mus ci amit benn xalaat lu nam ko fekke lu dul nam ko fekke woon mu wëyee ko noonee rek ndax nee na ñaar rek moo ko fi bàyyi wattu ak sàmm kon nag bis bi ni ko sëriñ bi digle ni ko sëriñ bi bëgg woon rek njabootam gépp itam wéyal ko ba mu egsi fii ko ba mu egsi fii benn xalaat mënu ci am benn xalaat mënu cee am de lu weesu noonee kon loolu ne ci seenu xel dal nee na ñu jeexale ko nag ci sëriñ bi da koo yónni woon ci sëriñ Cheikh jëm joxoon ko ndigal ci liggéey bi ba nu agsee ci koor gi mu yónniwaat ko ni da koo jox ndigal ndax ndogu yi ak liggéey bi mënee su koo boole ñaar yëpp danoo doon farata te xam na ne bu nu bàyyi woon ñu boole ko de kon moo tax mu yebaloon ko ni ko ne leen yeewi ban jotaa ndigal li kon nag nanu xam ni waxtu wun amee ak yaatu jotaat nañu ndigal ci tàmbali liggéey bii noonu lañu ko sëriñ bi sante wasalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu sama xel jëkk a dem rek mooy yéen yéen a koy liggéey bi yéen a koy foofa laa lay yeesaloon Cheikh Bassirou nee na lii sëriñ bi wax nii liggéey bi ban ko seetee ba gis ko nee na pastéef bi mu ca amoon ay yéene ji ci amoon xam pastéefu Cheikh Ibrahima Fall xelam kenn nekku ci xam ni Cheikh Ibrahima Fall rek man lii Mbàkke boo ko waxee des na ko gëm ndax diggante miir bi ak raay bi mu tudd juróomi meetar ba ko sa waajuru bëggee sëñ Modou Sa Mbàkke waajuru sëñ Cheikh Jëmboo la ko santoon sëñ Modou Moustapha Fall booba la gënoon a jafe at yan waxoon sëñ Moustapha Fall taxañ na ko ànd ko mbooloo mi sëppeel ko fa sëñ Modou Moustapha Mbacke bëgg ceeguñ ci limba ni ko Alaaji Ibrahima waxe liggéey bii sëñ Moustapha Fall falilu wax na ko bu du benn du ñaar liggéey bu ne am na woote bu ne am na sëñ Cheikh Ndiaye Mbengue fekk ko sëriñ Saliou Fall fekk ko sëñ Cheikh Mbacke Fall fekk ko sëriñ Fallu fekk ko Cheikh Moussa fa Fall lu ko waaye ni lu fekk fii nga toog mustu am yoon amul tànk ginnaaw gëme nañ ko ci sa toogaay bii ak sëñ Cheikh jëm fa mu toog la toog lay jala fee ci feer mën naa ay gën liggéey bi ciment bi dañ ko mujj delloo kon loolee ñu tàmbali woon moom la Alaaji Ibra jël wax nga ñaan ci doole Serigne Touba sa waa sa maam ja sa doole yi waajur Cheikh Bassirou Mbacké doole yi bàyyi ba Cheikh Mourou Safal doole maamam ji Cheikh Ibrahima Fall saa borom bàyyi la fi bàyyi ko fi ban jox la caabi amiin kaw bi la jàkkaarloo kaw bi la jàkkaarloo kaw waaw kaw may leen may leen may leen. da ngeen di def nii may.